je me permets de de de de de réitérer l'importance pour tous les Sénégalais. maa ngi taxawaat fii di wax ni mbirum souveraineté alimentaire Sénégal yëpp ñoo si war a dugal seen loxo ndax Sénégal li muy importer si denrée alimentaire toll na 1075 milliards ci suñuy koppar te suñu budget mu ngi toll ci 7 milliards kottu. loolu day wane rek ne war nañ gën a farlu ngir gën a suqali agriculture ngir ñu mën a yegg itam ci li nga xam ne moo di souveraineté alimentaire ci li nga xam ne moo soxal financement secteur mbay mi ñu ngi amal ay waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di banques yi ñu toll nag ci fanweeri banque ak ay microfinance ngir ñu amal bés boo xam ne dañ ciy sottante xalaat boole ci ñi nga xam ne ñoo di producteurs yi ak opérateurs yi ngir xool ban yoon la ñu mën a jaar ngir gën a dooleel mbay mi pour voir comment accompagner la filière le secteur agricole